def nañ ay jéego am na ci famille bi ñoo xamante ni ñun personnellement jot nañ leen wax nañoo ak ñoom te vraiment lu metti la loo xamante ni euh, ñoom ni ñu ko dundee metti na trop parce que déjà koo xamante ni euh, xelam am na jafe-jafe nekkul koo xam ne dafay jouir de toutes ses facultés mentale te loolu dossier médical moom moo koy wane donc ñu wane ni kii am na ay jafe-jafe ci wàllu xelam ngeen jël ko soit soi-disant dafay sàcc te information yi ñu am amul fenn foo xamante ni wane nañu ne moom dafa doon sàcc. gis nga ñu ko def du du dóori kese de du humiliation bi kese mais vidéo bi yi ñu génnee yooyu yëpp boo ko boolee moo tax yoon teg leen loxo donc keneen ku ko def tam yoon li mu war a def ci yow dina ko def. te dinañ ko jox avocat gratuitement mu topp dossier bi ba fa mu war a yem waaye moom ci boppam dinañ def ak suñuy partenaire jéem ko defal prise en charge psychologique parce que loolu ku mu dal dafa metti information yu ñu mujj am wax ak seen waa kër elle est dans un état boo xam ni wax dëgg yàlla dafa metti déjà moom mu ngi feebaroon ñu ñëwaat humilier ko toroxalaatal ko tegaat ko ci loo xamante ne instant il faut ñu sukkandiku ci loolu pour jàppale ko dimbali ko taxawu ko te loolu tam ak amnistie bi ñu nekkal ak jamra bi ñu nekkal dinañ ci jàpp bu baax service yi nga xam ne ñoo compétent dinañ rapproché wu ci ñoom pour ñu arrêter la diffusion de la vidéo léegi nag ñi nga xam ne dañ ko yoroon seen téléphone ñuy ñaan ñëpp ñu bañ ko partager parce que ku nekk na mettre à la place de la femme ku nekk na mettre à la place de sa famille xool ndax bu la daloon di nga bëgg ñu filmer ñu euh, diffuser say vidéo mais pour ce qui est de l'internet on va tout faire pour arrêter diffusion bi donc jàpp nañ ci ñaar ñoo xamante ne actuellement ñi ngi à garde à vue donc loolu bi nga xam def na ko ba ñu mun leen jàpp ci nu mu gën a gaawee noonu parce que acte yooyu moom lu ñu war di dénoncer la lu ñu war di ñaawlu la